gis ngeen ni boobu ba tey ñu ngi leen toppal li nga xamante ni moo fi xew-xew ginnaaw ba ki nga xamante moom mooy Aziz Dabala ak jarbaatam boobu di Wally ci ay anam yu doy waar yoo xamante ni gis ngeen ni mu demee boobu ba tey tamit ñu ngi leen toppal li nga xamante ni moom moom moo ci information ci loolu lépp gis ni mu mujjee fi mu toll arrestation yi ci am yëpp yi nga xamante ni yëgu ngeen ngeen mais présentement fii nga xamante ni moom la ñu nekk tombek tey mardi 27 août 2024 ñu war a déglu ki nga xamante ni moom mooy Euh, Nabou Leye d'après bi ñu ko defee keroog mandat de dépôt bi nga xamante ni gis gistoon nañu ko ñu ñëpp fi mu ne nii nag il est 11 heures passé de quelques minutes yegg na fi sànq moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy élément bip yi gis ngeen ko nii nit euh, ñi ñu ngi taxaw ñëpp ñi nga xamante ni ay mbokkam lañ ak ay jegeñaaleem ñoom it yegg si nañu pour def li nga xamante ne moom mooy soutenir ko ci li xamante ne moom moo fi nekk mais sama mbokk taskatu xibaar yi tamit ñu ngi fi di xaar li nga xamante ne moom moo fi war a amee kon lu ci mënti am rek incha allah fii ak ci kanam tuuti di ko gis gis ngeen nit ñi sax commencé nañu ñëw ñoom di def li nga xamante ni moom moo fi xew kon dañuy bàyyi soxna si nga xamante ne moom moo faire face ak ñun nii mu wax ñu moom it appréciation am ci ñu def leen giiru dund tëj leen giiru ndax fi mu nekk nii violence a génn fii violence a deñ ndax nit ñi sonn nan ñun tiit nan suñu njaboot gi xamatuñu fu nu jëm ban monde la nekk dafa ñaaw waaw Rwanda sax daw raw xaw ma ban ban réew la nekk lii dafa ñaaw Palestine lañ nekk barki yonente bi mm-hmm. dafa ñaaw Fadel waaw taxawaayu Dakar ba ci société bi doo ko jàllate waaw moom sant nañ la gërëm nañ la gis na ñi ngi taxawee new di doole ah, avant tout mais nag lii dafa méti da fekk benn boo xam ne soutien de famille ñëpp dañoo yaakaar ci moom ñu ñëw xëy ray ko loolu dafa ñaaw torop ñun ñu ngi jógee ba Cambérène ñi jógee Guédiawaye ñi jógee Parcelles fële lañ jógee ñëw pour pour euh, maanaam affaire métti ñu daal moo tax ñu ñëw mais ñu ngi ñaan yàlla ki def lii yàlla na yàlla teg loxo te bu ko nit ñi jotoon moom dañ koy taal ñu taale ka nekk Thiès taal daa xew buñ doon taal lépp seet lépp ay fay dañoo war a taal kuy dox yoroo sa jaas si kuy ne yoroo sa arme parce que dëkk bi amatu sécurité lii dafa ñaaw ay jigéen lañ mais tamit kii ñu rey daf ñoo awaja bu la daan ketal waaw awaja borom dax la borom dax la responsabilité ba dëgg fa yàlla nit ku baax social socialal na la fa ba sonn waaw dugg na ci Dakar bés ba tey fu ne socialal na la fa wax dëgg fa yàlla nit ku baax la na borom jàppale yéen ngeen bëgg yal na ko yàlla defal ci yéen danoo mer ba génne périg yi lépp leen génne ah, danoo mer waaw danoo fukki périg yi ndax danoo yor ay njaboot te lii dafa metti yaayu Aziz Dabala di rey rek yaayu Aziz Dabala rek laa yërëm yërëwuma keneen taaliba sëriñ Babacar si boobu yal na yàlla def jàmm lépp yàlla na fi amiin jërëjëf Jibi li ma lay wax rek Dakar bés moo ndar képp réew bu ñuy dee waxee fii ñuy di waxee fee waaye kenn ku nekk nan la may opportunité nga wax li nga xam ne moom nga bëgg a wax ci yar ak teggi mm-hmm. ñun nag duñu procureur duñu juge te duñu àtte dañuy bàyyi ki nga xam ne moo war a def loolu mu def loolu ah yow tam <laughs> amaat man fii réew mi daa naqare waxee te neexe da ngaa wax wax ju am solo mooy lan mooy kii nga xamante la ñu buntu tribunal bi nii sax yoo xam ñi nga xamante ne ñoom ñoo la rax de telle sorte que yow it ñoo ngi di reporté da ngay ña waa bi ba ngay génn waaw kon nanu xaar leen ba ngay génn comme comme ni ba ngay a jébbal bay demaat wala da leen di xaar wala da leen di yóbbuwaat ah, ñu xaar na ñoom ñu dem ak ñun li nga xamante moom moo ci indi oto bii ngeen oto ci image yi ci la ñoom ñi ni tuumaal dugg mhm. camion bi dama leew mi waaw camion man ko fii bi lu muy def nii ah <laughs> oto bii ci la waa bib dugg ak ci la waa bib élément yaa noonu uh-huh. waaye am na benn oto bu yuuxu de ah police la oto ci ci bi oto baa ngi nii jëlal ma image oto bii lañ dugg oto bii lañ leen dugal ñoom ñu ngi ci biir oto bi uh-huh. ñoom ñu ngi ci oto bi ñoom sax tey jaaxle nañu ndax mbooloo mi taxaw ci buntu tribunal di leen xool uh-huh. te kenn indiwu fi mbooloo mi ku ñoom bu dee ay nit waaye war nañu duñ duñ duñ te it li tax liberté wër mooy. Mhm. xaw ma ku def lii xaw ma nag ku def li mhm. waaye rëccu na lu tax mu def ko. tey nee woon na lii dara àdduna jarul su ma yëgoon du ma ko def. oto baa ngay génn. Mhm. oto baa ngay génn. oto bi mooy moo leen ci biir oto bi. may fàttali temps manifestation waaw bi gëj naa ko gis ca manifestation ya <laughs> lii lii amatul gëj naa ko seen pour man pour man oto oto bi amatul. ndekete oto bi des na yeneen kaa yu mu war a génnaat. <laughs> gis ngeen ko nii. ko noonu. oto baa ngi noonu. oto baa ngi noonu. oto bii la nga ne jëlal ma tribunal bi suumal ma ñëw ne ca kaw fee kaw pied ba di xool ca kaw escalier oto baa ngay foofu yow dugal fi yow bi non kii na bi camion bi na gaaw bi lu muy def nii looy seetaan baa ngi noonu di génn ji oto baa ngi nii di génn oto bii oto bii ngeen gis ci leen dugal ñi nga xam ne oto baa ngi nii oto baa ngi nii di génn te oto bi lépp ay caméra la oto bi du oto caaxaan oto bi oto bi xeer mënulu ko dara ñaari oto yaa ngay jiit la waat oto bi jiitu nag xamuñu ban oto la ci ñoom waaye jàpp naa ne oto bii la hmm. oto ba ca biir la hmm. waaye ñaari oto yi daal benn la ci ngeen gis ko noonu à traver Dakar Buzz Direct fii si tribunal bu Guédiawaye oto bi indi ñi nga xam ne tey ñoom ñoo am problème ak assise ba ak faat am ci ñoom ñun jàpp ne ñoom ñoo problème ndax ba tey amaguma ci lu leer ba tey li ma ja ñoom ñi ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo def jëf ji amaguñ ci lu leer parce que ci fi ne daa am fooy yam waaw indi lu leer nañ oto bii moo def ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne ñoo def jëyee ji oto bee ci biir oto bii di ñëw nag ci lañ dugg nag oto bee mooy jiitu escorté ko mais oto bii ngeen gis na ci lañ nekk ñu ngi ñu ngi ci biir oto bii ñu ngi oto bi oto bii la ñu dugg ngeen koy gis noonu oto baa ngi jël code pour génn waaye jigéen ñi ji bi jëlama ñu ca mbooloo mi taxaw ci kaw tribunal foofu di di di di ca ca kaw di upp ña upp ca kaw amaana ay mbokk lanu ay jege ñaale lanu ñenn ñi seen yaay lan ñi nga xam ne ñoom ñoo am problème ak ak ak ñenn ñi gis noonu ñoom ñëpp a ngi sëpp di seetaan lii c'est la première mu gis ko ci histoire senegal crime bu mel ni waa bi indi la tribunal bi mel ni wane ne rek. ni dëkk bi dëkk bi changé na. ku ne bu yëcc ku ne ku yabu ne ci ak njub. ku looy def na nga ko xam. ah oto baa ngi nii am boo ma mënee daggal oto bi nag moom dana baax daggal ma oto boobu parce que oto bii ci lan yëpp ñooñu ñoom nabu lay concert googoog ñoom ñëpp. ñoo ngi ci biir oto bi. ñoom ñëpp ngi ci biir ñu ko noonu oto bi daa rëy mënut a duggee noonu génne noonu oto bi tey dem na fu dem na fu mu xamut ndax oto bi bariwul lu ñëw fii xam naa oto baa ngi noonu ña nga ko doon tribunal baa ngi fees dell tribunal baa ngi fees dell tribunal baa ngi fees dell tribunal oto baa ngay génn oto baa ngi génn jël na kot ma ngay génn jibi jëlam élément yi bi ni ñu demee ni ñu dégisé woo xam nga nit ñi ku ne puusal di nga puus nga doon leen di delloo ña dellu wala bokk ñu indi leen leen fi wala ñu indi leen bàyyi leen fi indi nañ leen bàyyi leen fi sax loolu gën a jaadu. bu fekkee dañ leen war a déglu. waaw ñoom seen secteur fii mooy seen secteur. waaw tey bu fekkoon côté ville ba nële. mën nañ leen yóbbu central. Mm-hmm. wala wala wala tribunal. Mm-hmm. mais fii kon. zone Pikine zone Pikine bi la donc c'est normal. dañ leen di indi. Mm-hmm. dem peut-être après ñoom bu fekkee dañoo dem ñun kay dañuy jéem a gëstoo ba xam ñu ngi ci biir. ñu dañ ko renvoyé lu ci mën am rek dina leer. leer topp dañ leen ko toppal ci Dakar bés bu leen buuse lépp lu ci am dañ leen ko woon borom na dem borom oto saretu mbalit bi lu muy def oto baa ngay dem oto baa ngay dem oto baa ngay dem fan la jëm oto baa ngay demaat oto baa ngay dem oto baa ngay dem oto ba jël na code ba ngay dem jël na yoon arrêt national ba fan la jëm ndax da leen a wàcc ci biir dem ndax da leen a yóbbuwaat na leen toppal lépp leen bousee ci Dakar Buzz lépp la laan di ak faadal Dakar Buzz bu leen bousee nee naa leen li baax te wóor teset set te maa leen koy wan bu leen bousee